suñu borom julli ci rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na euh, sama wareef def naa ko en tant que en tant qu'électeur jël sama bulletin dugal ko ci urne bi urne bu nga xam ni mooy jël bulletin yi des élections présidentielles de mars 2024 donc vraiment ba fi ñëwee ba léegi depuis quasiment neuf heures man maa ngi fii mais ci lu ma gis amul benn problème tout se passe parfaitement bien euh, nit ñi génn nañu am nañu teel am nañu teel a ñëw voté dem seen yoon am na ñoo xam ñu ngi continuer di ñëw gis ngeen centre bi dafa animé tuuti donc te amul benn jafe-jafe dégguma ci coow dégguma ci dégguma ci wax donc loolu moom dañuy sant suñu borom ba fi ñu toll dal en tout cas ba dara amul te gëm naa ni aussi dara du am parce que bon vous savez Sénégal yàgg nañuy voté rawatina naa ndar ndar ci dëkk yi dëkk voté ci Sénégal ci la bokk donc yàgg xam nañu luy vote donc nit ñi dañuy ñëw rek def seen devoir citoyen maanaam voté et puis am na ñuy toog xaar am na ñoo xam ne daañu ñibbi xëy na ba bu ngoonee ñu dellu si donc li ma ci gis daal mooy maanaam jàmm ak salaam voilà jële fenn aussi ñëpp ay mbokk nañu quasiment li ñu xamante ne nii voilà donc message y a aucun problème message bi mu mën a joxe rek mooy comme ci koor lañ nekk aussi euh, nit ñi mën a teel a jóg ñoo voté euh, après ñibbi ci loolu sax ñun ñii nga xam ni ñoo ànd ak Amadou Ba bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar ñu ngi organiser wu euh, pour jëli nit ñi au niveau de tous les centre de vote nekk ndar vraiment def nañu en place benn dispositif ay véhicules oto pour yombalal nit ñi dem bi dikk bi pour que nit ñi mën a ñëw voté si avant heure ndogu parce que dans tous les cas de figure euh, si tout se passe bien 18 heures les bureaux yi di tëj bu amul prolongation te peut-être mën na ko bañ am parce que nit ñi koor tax xam naa daañ teel a génn ñëw voté dellu seen kër am ñoo xam ne daa ñëw peut-être fekkee si le déploiement pour xam le résultat ni mu mujj am nañ ci yaakaar bu baax a baax ci benn bés si merci beaucoup.